deux mille douze treize levé na ci fii immunité parlementaire en procédure d'urgence ci ay député yoo xam ne booba lañ leen gëjal woo fenn waxuma police waxuma gendarmerie waxuma procureur dara procédure d'urgence ñu lever sa immunité parlementaire te dara topp ci donc xam nga loolu c'est maanaam li ma leen di wax toujours daal am réew li ko yor mooy ñetti tànk xam nga jigéen ñi bu ñuy togg cin yi day am ñetti tànk wolof naa ko was ñetti tànk yooyu bu ñaar yi bu ci benn dëngee sax cin li du mën a taxaw normal république loolu la dafa am exécutif ñiy doxal assemblée ñiy tëral yoon justice ñiy àtte yoon waaye Sénégal assemblée bi turwee fa ne xam ngeen ne euh, démb nee nañu lan quatre-vingt-dix-huit ñoo wote euh, pour contre nangam nangam man toujours dama leen naan yéen vous êtes une majorité minoritaire parce que en 2017 bi ñu wotee ñoom 49 virgule la ñu am opposition les autres listes opposées au listes de Benno Bokk Yaakaar am cinquante virgule au suffrage universel bu ko fàttee mode de scrutin moo tax ñoom ñu am 49 pour cent ba pare am 75 pour cent des députés alors que 49 pour cent la ñu am ci suffrage universel loolu mooy jëkk a nekk problème donc assemblée boobu vraiment bu ñu ne voté nañu nangam nangam yooyu dañuy jàpp rek ne Sénégal daal amagul république Sénégal amagul démocratie bi ñuy wax loolu nag euh, mooy mooy dox rek laawoon Karim Wade laaw xalifa Sall laaw tey jii euh, Ousmane Sonko ak ëllëg xëy na keneen loolu nag euh, moo fi war a jóge mais gis ngeen Sonko waxtaan ak moom ban disposition d'esprit la nekk. non serein Ousmane Sonko ma ma daan gis avant lii xew ak Ousmane Sonko mi ma gis gisuma ci différence yàlla laay waxal. Hmm. bu ma ko gisoon mën naa tontoo neneen wala ma bañ a tontu waaye gisuma ko loolu laa ci gis.